bisimilah kon mbokku jullit mbokku taalibe yi niñ leen ko waxee woon rek ñu ngi leen di leen ziar bu baax a baax xam naa jiital ci nuyoo bi rek ah, Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moom la ñu waroon ubbee sànq di ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak Serigne Amdi Modou Mbenda xalifa ak mboolem jullit yeeg mboolem taalibe rek ñu leen ñaanal gudd ak wér naa comme ni ñu ngi waat fii ànd ak suñu technicien Sëriñ Modou Mbaye Thiam ak sëñ Jibi ak mboolem. Euh, ñiy liggéey ci li euh, Touba Monde bi TV nekk fii nga xam ne nii mooy Bolzano ci sant sëñ Touba yi nga xam ne moom la ñuy def mu dëppook neuvième édition comme leen ko waxoon ci tàmbali gi mu ngi nag toog ak euh, jëwrin bi nga xam ne nii moo jiite njàngum kuréel yi fii sëñ Aliou Niang su ma jiw sëñ Saliou Niang sëñ Saliou Niang ñu ngi jéglu baax a baax moo jiite li nga xam ne nii mooy kuréelu xasida yi nga xam ne moo nekk fii ci Touba Bolzano ak li ko kon sëñ Saliou lañ lay bàyyi nga ci waxtaan bisimilah. ak saa barke Cheikh Abdoulaye salaamaaleykum wa rahmatullah bokki taalibe bokki julliti ñu ngi leen di siyaare di leen dokkeel bu baax a baax ci bis di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Bassirou mi nga xam ni moo fi nekkal Serigne Touba di ñaan yàlla euh, naal wi nga xam ne naalal na ko maamoon yàlla suñu borom may ko ko mu yeggale ko sago di amaan mbégte bu baax a baax di leen siyaar ci liggéey bu am solo bi ngeen def di wax ne rek zone bi ñu nekk muy Alto Adige daanaka booy xool euh, mbooloo mi nekk taxu koo takku waaye am nañ Pastef Pastef boo xam ni daanaka euh, bis yu toll nii euh, ñi koy ñi koy organiser ci Italie bariwul waaye bokk nañ ci gox yi nga xam ne wax dëkk fa yàlla seen Pastef ñëpp ko ràññee ba ba ba seen cant sëñ Tuubaa gi nga xam ni at mu jot dañ ko daan def daanaka ñaari at yi ci ginnaaw lañ ko deful ndax jafe-jafe jamono. duñ def nag lu dul santee ko Serigne Touba mbir nag dafa am ñaar ndax euh, maanaam ku jiitu ak kuñ jiital bokk kuñ jiital da sukkandiku ci li mbooloo lu bëgg ak li nga xam ne moom mooy liggéey sëriñ bi la ko bëggee nga tegu ci yoon woowu ku ñu jiitu nag kooku moom bu la neexee jël ay décision doo ci waxtaan ak kenn doo ci yaatal ak kenn te ñun mbooloo mi ñu àndal am nañ ci maanaam sax ñoo ñu gën téeméeri junne yoon ndax bu ñu jëlee jiital ñu rek teg ñu ci ci ci yoon woo xam ne sañu ñoo jàdd kon loolu day doon sas ci ñun te wax dëgg fa yàlla mbégte mi ñu àndal ak ak ak ak pas-pas bi ñu àndal bu ñu koy def du du lenn lu jëm mbooloo mi nga xam ne ñoo ne suñu ginnaaw te cant gi wax dëgg fa yàlla ku gis xam ni du du cant gu ndaw bii mooy neuvième édition bi ñaari at yi ci ginnaaw dong lañ ko defut te wax dëgg fa yàlla ku gis jafe-jafe jamono xam ni sëriñ Touba mi ngi fi ba tey ndax waxuma la dara waaye tey jii képp koo xam ni rek yaa ngi ci kaw suuf xam nga ni ñaari at yi ñu génn jafe-jafe yi yi xewoon ci ci ci àddina bi yépp doyoon na metti woon na loolu waaye sëriñ bi wane na ci boppam ba mat sëkk sëkk sëkk waaw loolu nag duñ def lu dul di ci am mbégte di gën a gën a gën a gën a laxasaayu nekk ci liggéeyal sëriñ Tuubaa te xam ne loolu loolu mooy suñu fii mooy suñu fële te moom rek moo ñuy jariñ ñu ngi leen di sant bu baax a baax di amaan mbégte ci laaj yooyu ngeen ñu laaj. jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Saliou Niang euh, ci nuyoo bu matale boobu te am solo mel na ni rek euh, fi nga bàyyee rek foofu la ñu duggaat yow ci waxtaan wi comme ni nga ko waxee Covid jaar na fi lu ne jaar na fi teewut ngeen ànd ak pas-pas bu mot sëkk rek euh, ci wàllu Trentino ak Aldo ji li ko wër ngeen di dundal bés bi comme ni nga ko waxee daanaka léegi mat fukki at ba ngeen ko defee léegi muy juróom-ñeental édition bi ci ren. Eh, eh, sëñ Mouhadou eh, Bachir moom sëñ Bachir moom sëriñ Fallou di ànd ak liggéey bi samp fi liggéey bi kon mel na ni njabootu sëñ Tuubaa fu ñu nekk rek njàngum kuréel mënu faa ñàkk ndax bokk na ci li koy dundal xëy na ñu bëgg laa laaj yéen xëy na wàllu njàngum kuréel nan ngeen koy saytoo fii wala boog liggéey bi nan lay doxee fii ba ngeen mën a taxawal pes bu mel nii. waaw maanaam lu jëm ci wàllu kuréel gi sax maanaam mën naa ni. cant yi fi njëkk a organisé cant yi ñu fi njëkk a organisé at mi ñu ko njëkk a kuréel gi nga xam ne moo fi jàng Trento ak Bolzano ñoo boole woon jàng maanaam ñaari kuréel yi nag am kuréel am nañ kuréelu fédération am na kuréel boo xam ne mooy Bolzano kuréel boo xam ne mooy Trento centre kuréelu Bolzano ñoo doon jaag liggéey bi nag li ñu koy doxalee mooy maanaam euh, ku ci nekk gox bi nga nekk ndax diggante Trento ak Bolzano xaw naa xëcc ci waaye ku ci nekk gox ba nga ne fa ngay ne di tàggatu di di di di di ci xasida yi ba ba ba loolu mën a taxaw man nag zone bi ma nekk mooy Trento Trento laa gën a féete man maay jëwriñu kuréelu Touba Touba Trento di jëwriñu kuréelu fédération bi waaye bu ñu amee répétition fédérale bi nga xam ne ñu koy def ñaari yoon ci weer wi bu ñu waree ñëw Bolzano benn yoon ba ci topp ñu dem ñu ñëw Trento daje fa booloo mën a répété def répétition générale boo xam ni kuréelu fédération bi moom moo koy def lu jëm ci wàllu répétition yi nag lu ci mel ni kuréelu Trento chaque dimanche lay répété kuréelu Bolzano chaque samedi teewul tamit am nañ groupe boo xam ne ci la ñuy nga xam ne moom la ñu war a jàng ci programme yi ak euh, bu ñu waree daje benn yoon ci weer bi wala ñaari yoon ci weer bi ça dépend ci jot bi nga xam ni euh, mate na ko pour ñëpp mën a daje daal. li nga xam ne nag maanaam euh, mooy liggéey bii nga wax nag maanaam daa daayira Bolzano bi nga xam ni mooy mat Matlabul Fawzayni ci ñoom la xalaat bi juddee woon ñu ñëw ci biir bi nga xam ne ñooy euh, ñooy ñooy ñooy euh, daayira Sahadatu Daarayni Touba biñ ci waxtaanee ñun ba yaatal ci ñun ñu rafetlu ko lool ñëw topp seen ginnaaw ànd ak ñoom liggéey bi waaye de ñoom dong mënoon nañ koo doxal ndax nit ñu jëlee teg ñu ci kanam. bi ñu ci laaj ñun maanaam suñu suñu xalaat sax yeggu foofu waaye nag maanaam li ma la wax sànq rek dañ lay jiital topp sa ginnaaw di la teg ci yoon te loolu sëñ Tuubaa danga ko ñun nag duñ def lu di ci sant sëñ Tuubaa di ci santaat bu baax a baax Cheikh laat Lahad mi nga xam ni mooy suñu bunt di Cheikh sëñ Moussorang mi nga xam ni mooy sëñ Cheikhouna doomu sëñ Cheikhouna mi nga xam ne mooy sama sëriñ ñëw na fi moom it Euh, moom it yàgg naa ñëw ci zone bi xam na bari na fekk bari na fekk euh, euh, duggante ak mbokk taalibe yu bari ba nga xam ni tey jii liggéey bi bañ koy tàmbali ñu nag moom moo ko àndoon ba tey jii at mu jot da ci ñëw ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëmaat ci. macha allah macha allah sëñ Saliou ni nga ko wax am na solo lool mel na ni wane nga naw yoon. Mm. ci mboolem kuréel yi fu ñu nekk rek nekk ci gox yu xaw a jégaloo la bok région wu ñu nekk. fexe mën a taxawal benn kuréel wala def benn fédération comme ni nga ko waxee léeg-léeg ngeen defe ko Trento léeg-léeg ngeen defe ko euh, Bolzano teewut ku ci ne yaa ngi sa kuréel di nam na bi ca gox ba nga nekk waaye fexe ngeen ba tamit mën a am genn kuréel ndax ëllëg it euh, buñ leen woowee ci benn programme wala ngeen génn leen neexee def benn kuréel kon loolu mel na ni wane aw yoon la te it wane ngeen ne bennoo ngeen li nga xam ne moom ngeen bokk muy sëriñ bi te mënuñu koo bokk kon loolu wax dëgg fa yàlla bu ñëpp defee nii yéen xaj na mel na ni njàngum xasida dina gën a aw ci yoon te mbooloo yi dinañ gën a mën a nekk benn kon loolu ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax leen ci sant bu baax a baax kon ñu ñëw ci bésu tey bi ni nga ko waxee mooy neuvième édition bi du cant rek daanaka rek da ngeen fiy liggéey sëñ bi ci wàllu xasida tamit mel na ni mboolem kuréel yu bëree bëree bari fete ci noor Italie ñëw nañ doon te yéen sori ngeen waaye fexe ngeen ba am nit ñi ñu leen di fekk si kon nan ngeen di programmer loolu ba mel na ni euh, du ma ne kuréel yi gën a mag Italie waaye boog yu ama am solo yëpp nañ leen teewal ci bés bi kon nu ngeen waajal la ak nu ngeen di jokkalanteeg ñoom boobu ñuy mën di teew ci bés bi. ndeysaan macha allah. ñu ngi amaat mbégte bu baax a baax. Euh, laaj bu am solo nga laaj. ndax euh, xaj na de at miñ ko njëkkee def euh, mën naa ne ñeenti kuréel ñoo fi jàng te ñeenti kuréel yi fi jàng yëpp ci zone bi lañ nekk kon dalay wan ni Serigne Touba képp koo xam ni wéet nga fa nga ne di ko liggéeyal. bu soobee yàlla da ngay jékki-jékki rek gis ñu ne sa ginnaaw waaw kon loolu mooy mooy firndeel ni tey jii kuréel yi fi teew yëpp daanaka fi mu toll nii da boo xoolee programme bi daanaka ci lañ nekk nii ndax ndax tënk tënku lu toll ni fukki kuréel yoo xam ne tey jii war nañoo prester fii te dara waralu ko nag mu dul pas-pas bi nga xam ne waa Bolzano yi daayira Bolzano bi ñu koy doxee bi ñu soññ nag ñun waa daayira Koupentoum waa Bolzano dañuy soññ bu baax a baax a baax ñooñu gën fop waaye nag maanaam mbir mi liggéeyal sëñ Tuubaa ci boppam la la la a daanaka dañ koo bokk te mënuñ kon nag dañuy àndandoo rek di ko liggéeyal ci ci fànn fànn bu rafet ci ci teg ko ci lu leer ba nga xam ne duñ am benn jafe-jafe jërëjëf ñu ngi sant bu baax. macha allah macha allah sëñ Saliou euh, ci tontu bu am solo boobu xam naa euh, mooy sëñ Saliou Niang mi nga xam ne nii moo jiite fédération Touba Bozan ak ci wàllu njàngum kuréel jiite it kuréel Touba Trento. moom lañ doon dalal fi ci Touba monde bi ci bés bi nga xam ne ni moom moom la ñuy def di sant sëñ Touba def ci ngondu xasida di ko def fii ci euh, Bolzano kon dañ lay bàyyi nga nuyoo joxe sa kàddu mujj rek ñu door a yëkkati bi. jë jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ñu ngi leen di saarewaat bu baax baax di leen ndokkeel ci bis bi di ñaan yàlla suñu borom liggéey bii ngeen nekk. mu jëm ci wàllu audiovisuel ak euh, jàllale jàllale loo xam message yoo xam ne am solo la ñu leen di ñaanal suñu borom mu gën ko sëriñ bi gën leen cee saxal ba ngeen ba ngeen daje cee ngërëm ndax euh, lu am solo la ndax euh, bari na programme yu am bu buñ ci bu jàllee bañ teewulu ko wax dëgg fa yàlla seen interview yi ngeen ci def lu am solo solo solo loolu la sax ndax dana bari bari yoo xam ni loo dul xam ci bis bi ci ci interview yi nga koy xamee kon nag duñ def lu di leen ñaanal di siyaarewaat mbooloo bi baax a baax di ñaan yàlla ñu yàgg ko ànd fekkee ko déwén yu bare bare bare barke Sëriñ Tuubaa ak xasi euh, jërëjëf jërëjëf kon mbokk jullit mbokk taalibe yi fu ngeen nekk ci àdduna bi di ngi seetaan ci Touba Monde bi TV mu ngi dëppoog tey le 27 mai 2023 mu nekk fii ci Touba Bozan dëppoog seen neuvième édition cant sëñ Tuubaa nga xam ne moom lañ fiy def mel na ni euh, bés bi nag lépp a ngi ci biir njàngu xasida ngi fi njàngum rages a ngi fi kii moo nekkoon Serigne Sare Diagne jiite fédération kuréelu Touba Bolzano ak Touba Trento moom lañ doon dalal ci laay tontu kon ñu ngi leen jox di daje léegi ci kanam ak yeen mbokk yi nga xam ne ni ñoo organisé bés bi nga xam ne mooy sant sëñ Touba fii ci Touba Bolzano waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa